dama doon peese sama bopp rek maanaam def démonstration de force démonstration de force bi aussi dara ump leen ci ndax yéen ngelaw sax bu yëngoo xam ngeen ko macha allah daw ma fenn jël ay kaar di fay ay nit fenn waaw xam ngeen ni ñii ñëpp ci dëkk bi lañ dëkk ñi xamante nañ bu baax daw ma fenn jëggaani benn militant walla benn militante jeunesse bi ñëw nañu jigéen ñi ñëw ni góor ñi ñëw nañ même troisième âge bëggoon nañ ñoo ñëw. bu ma defee démonstration de force bi ba pare li ko ñaareel mooy def sama bilan bi nga xamee ne waa Mbàkke doyloo nañ ma ba taxawal ma ca péncum ndaw réew ma li nga xam ne moom laa fi indi fii ci biir Mbàkke euh, beneen bi ci topp mooy leeral sama diggante ak waa parti démocratique sénégalais bi nga xam ne. ñoom laa nekkoon di liggéeyal ba may jeeg bu ndaw ba léegi ma nekk di opposé ba ñëw assemblée defe ne noppaloo moo ci des xeex bi gën a tar ma dékku ko nag rek ndax Mbàkke jaral na ma ko euh, bi ci des ma ñëw ci li nga xam ne moom lañu dëgmal muy local yi nga xam ne moo waral coow li ma leeral ne dem naa ak coalition Benno Bokk Yaakaar ci coalition Parti démocratique sénégalais ma dem àndeek euh, coalition Benno Bokk Yaakaar ki ma àndal tey ci dëkk bi mooy xale bu am yar bu amee teggin bi directeur galo Ba ndax ragal pété day xañ wërsëg parce que élu du peuple nag du lu ndaw de nekk fa vice présidente organisation de femmes yi ne Mbàkke ma téye ko jiite leen bu ma ci nekkul président nekk ci coordinatrice départementale ba na gox yi maa nekk régional maa nekk départemental mu nangu li yàlla dogal xam ne ndeyam laa xam ne jàmbaar laa ci dëkk bi jàmbaar laa ci parti bi ma nekkoon ñoom dañoo yab gal waaye Macky sàll sax soxla na ma te mënuma woon am bon galo tey bu nangoo ab dogal wàcce boppam xam na yaayam laa ci catégorie d'âge ñu ñëwati ci ndombay tànk yi ma yàlla jox mu wàcceel boppam ndax li ma koy jur jur ak li muy doon xale kilifa la cadre la xam ngeen ko cadre la de haut niveau de haut niveau mu wàcce boppam ñëw tendre ma laame ne ma yaay dama bëgg ñu ànd liggéey mbàkke ndax gis naa ba may xale tout tànk di jàng ba léegi nga nekk ci politique bi te mosoo en arrière te naw laa la ndax am nga fulla am nga fayda am nga fit loolu moom moom laay doxe moom fit moom foo ko takk ci man passé noonu ah, élection locale yi dinañ ci dem mais ci ban bañee parce que man nee naa la maay coordinatrice bu commune Mbàkke bii ñefe ko ba am ko nag dignement ak nu mu mën a demee ñoom war nañ ma consulter quand man ku ma tegut fenn faalew ma la waaw ku ma cof ma wadd ay kuréelu UJTL war ngeen koo wax UJTL man bi may def sama campagne UJTL bi àndut ñoo man te teewut yàlla yóbbu na ma assemblée man jigéen ñee ma fal man mag ñi ñoo ma fal. est-ce que dana wute dana bokk ak élection yi dëgg ah c'est possible yàlla moo xam. fàtte présidentielle yi jàll. ano Decroix ano ah, Mamadou Lamine Diallo bu bokk gis-gis. anu euh, kee Malick Gakou nu ñu def te Ablaye Wade dafa taxaw ne lii ngeen di def ñu wàcc ko fa dem ànd ak Idrissa Seck bi ñu paree dellu si nañ ci parti te même au niveau de l' assemblée poste responsabilité ñoom lañ ko joxaat neexalee leen ko bong bu ngeen tëddoon ba di ngeen ne maire Fatma Diop di di la lan ngeen defee mag du fee ci yàlla naa dee di. bu loolu amul. Ah? tàggoo am. bu baax. condition lañ àndeek moom. ndax euh, moom benn ba ko yaakaar la nekk man ma nekk PDS. ñu ànd nag coalition. boole suñu doole lu ñu am jël. loolu leer na mel na ni midi. jiitu PDS na mu koy yëge pour lan ma di ko ko yëgal moom ba muy ñëw ci dëkk bi di tànn daf maa yëgal. Hmm. daf ma yëgal. ni mu amee kilifteef noonu laa amee kilifteef fii ci commune bi yëgaluma ma du ma ko yëgal tous. waaw je suis libre d'aller où je veux et quand je veux local lañ wax. élection locale. liste parallèle waaw ban liste parallèle. bi nga xam ne am na ci département bi te ñenn ci ay parti euh, euh, coalition bi te nekk président Macky di liggéey ñoom ñoo ko taxawal. ah loolu c'est leur problème déggooy nga ne Macky Sall loolu c'est leur problème ñoom la engagé. tiituleen ci nga xam ne dem ngeen man daal biñ ma defee lu ma naqari man sama parti. Hmm. taxaw naa seet fa ma neex. fa dal sama xel mu ñëw tàllal ma loxo ma ànd ak moom leneen lijjantiwuma ko ay meeru prononcé wu na dégg ngeen li nga wax fii ak fan yu néew bu ñu déposé loolu léegi nag dinañu jox date bi nga xam ne ci la ñuy dem plénière pour xam ndax dañuy lever seen immunité parlementaire walla duñ ko dindi foofu lañ tolloogum